Wow, wow, wow. xew ba gars yi nangu la jël lu mu demee noonu. gars ñoo ragal. gars yi dégg dégg nañ sa combat Gambie lu waral lool. waaw ñaax ab combat dañoo ragal ay tabel lañu dañu war a jël fii jëluñu ma du ma bëre. Gambie kañ nga fa war a bëreel. la seet laa war a bëre Gambie di woo waa Guèye yëpp ak képp ku Sénégal maa ngi lay woo drapeau Macky Sall Gambie incha allah. gis nga daal daw si ànd ak ñoom boo ñaam école de Balla Gaye ñoom fils de Balla loolu ban sentiment nga jàpp sa yaram loo yëg. ñun ñoo moom Guèye waay ñun ñoo ma far ñun instant yi booy la ñun ñoo moom Guèye ñoo seere Guèye waay ma fi aari seedoo lañ bokk waaw amul ragal amul tiit. waaw booy jinne war a sëgg léegi ci kanam combat capital lan nga koy yebee. ka ñaanal ndam rek ne ko jàppal doo ko bëre jàppal doo xee jàppal doo ko bëre ndax ki nga bëre daa gaaw te yàlla ko yàlla may ndam mais maa ngi wax Aliou Sall boy di sëy képp kuy jàppale Macky Sall maa ngi lay woo drapeau Macky Sall laay bëri la seet la seet incha allah bu neexee yàlla si woo doomu gën parce que ay ñëw taxaw ñu dem Gambie daan dubu teel incha allah bu neexee yàlla waaw ñu lay sant baax di la gërëm waaw ñu lay bëgg bu baax tamit waaw ba tey ñu nekk ak le grand champion Boy Niang bu école de lutte Balla Gaye mujjee am ndam ci kaw xam nga am ten mooy Ndongo Lo avant tout mbër ñu nuyu la baay nga présenté wu nuyoo. waaw maa ngi lay fay di nuyu axlu làmb di tey moom suma rakk mu fi indi Papa boo jinee di ko ñaanal yàlla may ko ndam di ñaanal orka sama rakk mu jëm ci combat tamit yàlla suturaal ko di ñaanal bépp mbër bu jóge géejawaay yàlla boo boo amee combat yàlla may la ndam daal. waaw ah, mais mbër bu ñu xoolee Papa Boy Djiné di bëri xale boo am te musul daanu xale bu ës coow li bëri nan nga gis làmb ji noo gisee loolu mais Papa Boy Djiné boo xoolee yoonu làmbam il rek combat yi moo ko arrangé tey la ko gépp di xam tey dafa war a ñëw wane boppam si booy boo xam musul mu ñëw tey wane boppam ñëw duma ko daan ko loolu la war a def waaw bu ñu xoolee doon poids bi mu yor ñëpp naan est-ce que ni mu toll na noonu papa ni mu toll do barke Alxuraan dafa am doole man jàppale naa contact dafa am doole te dafa waajal combat bi di ñaanal yalla ko yalla sutural bis bi nek bisam di wax wa waa way yëpp nañ mobiliser wu ñu dem gambi toj Gàmbi ñibbisi waaw. mbër bu loolu weesoo bi nga amé ndam ci kaw nga tan moy nongolo mooy dégg na la nga daal wax ni solo combat ku mel ay Yékini mais boobu ba léegi euh, déggu déggaatuñ nga wax ci combat fa nga toll. wa mais man man prouvé naa ci lamb de 26 combat la bëre 6 défaites suma mbeuri jëlul mbeuri magi buñ ma jëlul ma dem liggéey lamb li ma ci wara a wane na ko ci ba paré ma bëri naag samay morom bëri nak sumay rakk sumay rakk ñi fi dëgër ñëpp man maa leen daam mais kon làmb lii nii su ma ci mën daam dara fu mu toy nii ma bàyyi làmb dem liggéey noonu la demee. boobale benn promoteur contacté wu la pour. waaw ñu ngi may contacté di ma wax ay mbër ay mbër yu bari mais nak lépp rek am naa staff nañ fa jaar wax ak ñoom buñ juboo rek ma ma ma ñëw bëri si. waaye mbër go dem mënoo ñàkk a wax ci li nga xamante ne moo waral coow li muy diggante Lac de Guiers ak Boy Niang coow li bëri trop combat am no ko gisee. billaahi wallaahi wa taalaahi Lac de Guiers ba mu dalee bëre ba léegi mi ngi doog a fonk combat combat bii nii booy Niang dina xam ne mi ngi doog a yàpp billaay wallaay di wax ni nag su rakk mi ngi ñëw nañ ko sóoraale mi ngi nii waaw su may kii ñoo bokk ikiri booy bu baax di ñaanal ñëpp di wax ni làmb dama ci war a am dama ci am cër dama am lu ma ci war a jël naa ko jël ci kàttanu yàlla ok merci yow nag yàlla na la yàlla suturaal nga nekk nit koo xamante ni dem bay wax ci ay am ay télé am lépp te méritoo nga ko koo tarbiyu lii nga nekk nii da nga ko yàgg gëm waaw. amiin di la kii nag cameraman waaw yàlla na ko yàlla def mu nekk cameraman bu mag a mag a mag a mag waaw ci kàttanu yàlla.